jaajëf Mbaye ñu ngi dalal grand kilifa bu kër gi kilifa gëj nañ ko dégg depuis ba mu génnee xarnu bi ba léegi déggaatuñ ko ci dara grand baa ngi nii ñu laaj ko ci lu mu nekk ak lan lay waajal grand kilifa nagamu naay sant yàlla alhamdulilah. ginnaaw xarnu bi lañ nga indiwaat boobu ba léegi déggaatuñ kilifa. dëggantaan kilifa dafa lëlu dafa def yëfu kilifa dafa dugg xalwa bu génnee yàq sedd ñëpp incha allah bu soobee yàlla. instant bi lan lañ mën a xaar. ci 2020 bi kilifa andil ko wala kër gi wala kër gi en personne 2020 bi moom góolu leen secret d'état bi parce que franchement def na l'album a fini de faire six ans ou cinq ans sur le marché alors du coup donc ci 2020 bi xaar leen secret d'état incha allah bu soobee kilifa dañuy génn si côté yi bopp dugg tuuti ci côté citoyenneté démb suba am na li ngeen di waajal suma ma non Y en a le 10 waaw. le 10 Y en a marre ak collectif ñoo lànk ñoo bañ la quoi maanaam ñoo lànk ñoo bañ mooy képp ki nga xamante ni tu es citoyen comme tu viens de le dire et que tu es interpellé par la situation actuelle du pays mooy tel que la cherté de la vie l'augmentation de l'électricité bi nga xamante ni teguñ ko ci yoon teguñu ko ci lenn dañu xëy rek yokk ko et nous tous nous avons compris que ni. c'est juste une augmentation euh, pour encore arnaquer le peuple pour encore nous faire payer une dette boo xamante ni lebuñu ko donc qui qui se sent euh, concerné qui se sent citoyen et patriote surtout tu dois dire non à ça ñoo lànk ñoo bañ donc non à l'augmentation de l'électricité et Euh, de de de de de la monarchie euh, bi ñëpp gis ci dëkk bi di ci teg seen bët. bii baa ngeen war ko defee ci banlieue bi. Euh, non place de l'obélisque. place de l'obélisque ba tey foofu ngeen koy. place de la nation incha allah. déglu nga discours Macky Sall président de la république Sénégal laaj nañ ko si troisième mandat bi mais la mu ci daan wax la ci wax loo ci xalaat gëm nga nii da koy taxawal wala. cest à gis nga euh, ñun ñooy nekk fii sax di xoromal ay di di di di di di di poser cette question mais c'est une question qu'on ne doit pas poser Macky Sall dafa am lu ñu booleek moom mooy euh, benn mandat ñaari mandat c'est fini pour man waruñ ci nekk sax di ci wax ak yooyu di ko may fitu sax mu naan naa ci wax duma ci wax wii wala duma ci wax non alors ñu ngi koy may sax fit muy sonde di xool fan la kii yu toll mais daal de toute façon ñu ngi koy déglu di ko xaar ci loolu. tey nga ñëwoon ci concert lu du rap Galsen bëgguñu initiative bi noo ko gisee ay melomaan teg compilation. waaw mais c'est une très bonne initiative. c'est des c'est des jeunes que que toujours encouragé <coughs> parce que c'est des melomaan qui ont pris l'initiative de se transformer en promoteur et en producteur. bi ñu ma waxee projet bi vraiment mu nekk un projet à soutenir un projet à saluer ma leen dinaa ci participer à deux cent pour cent ak yeneen rappeurs yëpp yi ñu gis wax leen ko gars yëpp participer ci positivement à deux cent pour cent dugal ci seen loxo en tout cas chapeau à ces mélomanes le crew lu dul rap Galsen dëgg la ñoom ISAP ñoom Delcho ñoom euh, Obi médecin sama gars yi nekk foofu yëpp parce que boo limee mooy loolu quoi ñoom baleel naturel mbaalo donc gars yëpp di leen bëggee di leen shout out leen wax ni que le hip hop et surtout man kilifa je serai toujours à vos côtés euh, courage et respect. 2020 mun nañ xaar kër gi. incha allahu rabi ci plein plein plein plein de trucs bu soobee yàlla. waaw jaajëf Kilifeu ñu ngi lay bëggee. jaajëf Equivox. Yeah. lay doo koy ok xam na naa la vite fait gis naa ku ci nekk di ko xiifee jëm ñëpp mu ko maa biir teg xëcc sama loxo mu ko maa biir teg na sama yëngu ni mu positif kon foog seen bos mu la maa ay teg pour ma gaa di gëm ah yéen de tey tax ma ma gën a waga Eh, abiyo manga fungalange yeah let's go yeah ñun dañuy jayaxu woo oh. Yeah, yeah, yeah. la dem na aji war na gën a xaay moom dafa mel dafa gën a ne la ci baay may la zéro bi gën a baay man maa ngi piisi maa ngi dem si maa ngi a baay loo mu rendi la du la rey ndi weewu elen naa wax dox waaju baax oo oh, maa ni nga aadoo xaakeen la fa ni nga paaraanoo no ni tajate sa kaas naanoo ba sangu wut bi te saalaanoo ñëw yow naka sa tugutaa dalaxu dalaxu ñu fii la ba ngi dala ba ñu ñëpp dalaxu dalaxu dalaxu dalaxu dalaxu dalaxu dalaxu dalaxu dalaxu dalaxu dalaxu Anybody like this shit? Anybody, anybody like this shit? Nah, anybody like this shit? Anybody, anybody like this shit? anybody like this shit? Anybody, anybody like this shit? Now, anybody like this shit? Anybody, anybody like this shit? Yeah. Uh, I said, what are you Pamalange. Yeah. You're in the next bar. ci samay criminel mën koo place ni sama doom tax tàkk wala kàlla caay flipa dakaatu feeb haat clash ba ci fam sépp xam na ni ñaata yow ba bu ko ci kasa bi wala ko mum xool ni ñaata fekk nga ku laa bu paaka denc tasal ma tàmm balaa dem di ban wi ban ma ren ma taway jéem ni doon su nañ ba ci gën tey seen kamikaas sama benn doom bi gën ka dem Sandwich. Hey, hey, hey, hey, down the sandwich. They can't stop me. Motherfucker, down the sandwich. Yeah. When the normal dick is a main vegetable, when the normal kiss for basic, then I got the fuck. Nick Lobo, back home. Then I did it with the driver. Put the fuck against the header. That back up the main driver. But whenever I'm in the front, I'm in the front of the target. So somebody, everybody clap for the immigrants. You wake up, we're going to have to play a match. You see the man of fucking game. The match, hold the game. Shut the front of you, you know, make it the heart. You think you're going to You understand me? ñi ngi taxaw ak Mr Avocat from Thiès moom it gars yi ko dégg trop avocat ci loo nekk. te na ngi cool bro. nan la bàyyi. non maa leen raw barki yàlla. gars yi nee dafa daw Thiès làqatu avocat doo ko gis fenn yow nday mbili yaa ngi nii taxaw waxal gars yi ci loo nekkoon. yow maa ngi ci maa ngi ci baab bi ah. baab mooy la moo ngi ñëw wait for the baab. wait for the baab. <laughs> <laughs> moo ngi ñëw incha allah projet bu mag la. ci liggéey bi lañ nekkoon moo taxoon tamit mënuñu woon di xam nga benn taat mënul waroonoo ñaani mbaam munoo nekk ci liggéey bu am doole liggéey boo xamante ne li mu laaj dafa bëri et ngay nga nga koy boole yenn activités yi mënul nekk moo taxoon ñu defoon euh, sacrifice concentré wu ci waaw mais nag ñoo ngi ñëw nii ñoo ngi ñëw incha allah di d'ici un deux trois quatre ay cinq jours six koj leen ñu album ay génn wala son. benn single mooy génn mais vidéo lay àndal incha allah kar leen ko moo ngi ñëw bu ñëwee di ngeen di ngeen di ngeen gis di ngeen gis leneen daal dinañ ñëw ruubee game bi bu baax a baax a baax a baax. dinañ ñëw ruubee game bu baax a baax mais album bi kañ lay génn avocat loolu la gars yi di laaj album bi mën nañ ko xaar 2020 wala 2021. waaw dina am dina am buy génn ci 2020 bi incha allah. album. waaw dina am buy génn ci BMW. <laughs> mën nañ ci xaar ay featuring. Eh, non non. 100 cent avocat. 100 pour cent avocat. mais loolu est nekkul yaa ko njëkk a def. Ah, gis artiste. <laughs> waaw peut-être nag xëy na gars euh, gars yi coloration biñ ci soxla et tout moo tax ñu ko mais bii dama cee sentir sama bopp 100 pour cent parce que. affaire bu waga lay doon quoi tey. mais ba avocat code yi wàññi nga ko code yi. what the hell non loolu du du pourtant du ay code de kii la rek kii la rek nu mu tuddati feeling la rek nga àdduna nit ki lépp lu muy def dafay am feeling boo xamante ne bi moom lay bëggee defee loolu il faut que loolu nekk ci du si sentir boppam à cent pour cent mais bu fekkee ne loolu moo ngi ci nag da ci sentir boppam xëy na nag jamono jooju jamono code code comme ni ngeen ni ngeen di waxee ay code loolu moo nekkoon feeling bi mais nii instant bi leneen mooy feeling bi. baax na kon ñi nga xaar album bi 2020. incha allahu rabi. nga dina ma tudd. Euh, Bab. non non du Bab Bab bi moo ngi ñëw ci ginnaaw. ah bi am na leneen luy ñëw avant. Bab dafa am luy njëkk Bab bi ba euh, après Bab bi après am na leneen dañoo liggéey woon quoi. ok ok kon 2020 ñu xaar avocat bu bëri doole. xaar leen woy yow. <laughs> wax baaxul Abouya Manga Folange. Abouya Manga Folange avocat jaajëf Mbaye.